laan bikum Ousmane Sonko fañ koo daaneel ñaari yoon li ni mel la yéene kaay yu bari xëy bind ci seen xët mu njëkk bokk na cawal wal fajri yéene kaay yaaw seetal ëtt attkaay bu CEDEAO kalaame ba mu fa yóbboon ci kaw état bu Sénégal àttekatu CEDEAO fa ñoo wax ne gisuñu benn yoon aq ak yelleefu Ousmane Sonko yoo xam ne état bu Sénégal fa koo salfaañe kon tas bi nga xam ne état bu Sénégal fa koo tas parti boobu di Pastef ñoom ànd nañ ca loolu benn la ñaareelu suprême bu ndakaaru fa neenal attekat ba nekk Ziguinchor saaba si fay ba mu jëloon ci wax na nañ dugalaat sonko ci liste électorale yi ndax li ñu def du dëgg du yoon waa cour suprême fa ñoo neenal dàq atte boobu ba pare fa ñoo wax ne léegi fa ñoo war a dem tribunal bu ndakaaru ñu attewaat atte bi l'observateur na ñaari dogalu atte yooyu yëpp baaxul ci Ousmane Sonko ba tax na fi mu toll nii yaakaar bi ñu amoon ci ay dem Sénat joxe fiche électorale bi fi mu toll nii inta c'est fini info yéene kaay ne suñu waxante dëgg nii Ousmane Sonko bokkam ci ay wote yi fi mu toll nii fa taq suuf tribune yéene kaay fa yàq lépp le quotidien ne ñaari naqar moom la Ousmane Sonko xam fi mu toll nii ba tax Sud Quotidien ne Sonko kay fi mu toll ay mbiram fa doy waar yoor yoor yéen a kaay ne mënta ñàkk a doy waar di CEDEAO fa ànd ak état bu Sénégal ci tas passif Cour suprême jël pataas bu tàng ba jébbal ko tribunal bu Dakar donte démb nag ca atte ba Ousmane Diagne avocat général fa wax attekat dina leen agence judiciaire de bi maanaam nguuru Sénégal gii lay yi ñu andi fii daraa ci taxawul li jaadu mooy fa ngeen bëgg-bëgg état bu Sénégal dugalaat Sonko yooyu source ay yéen a kaay ne attekat ba ñuy wax Aïssatou Diallo Ba bokkoon ci juróom ñi nga xam ne ñoo doon atte démb Ousmane Sonko bañ duggee ca néeg ba ba tëju ngir génn joxe seen dogalu atte attekat boobu ñuy wax Aïssatou Diallo Ba moom fa bañ na du toog xanda a fa dem te loolu mu def nag junj doy na borom xel waaye nag am na lu ko ci mën a fekk de yaaw seetal njiital Cour suprême bu fekkee fa def rapport boobaa jëwriñ ji ñu dénk wàllu yoon mën na ko teg ay daan ndax magistrat fa waat ne buñ tëjoo dogal buñ fa jël kenn du ko wax waaye tamit kenn du def jëfin boo xam ne ko xool fay yow ànd nga ca dogal dañ koy tere te attekat boobu loolu mu def ku ko xool fa ngay njortu xam ne ànd na ca dogal ba yeneen attekat di jël wala àndu ca laas yéen a kaay ne miracle bi Sonko doon xaar démb ak i farandoor mujjuta am Dakar presse yéen a kaay ne Sonko koy fa ñàkk ñaari match source a yéen a kaay ne état bi am na deux Ousmane Sonko am zéro avocat Ousmane Sonko Branco ak maître Ciré Clédor Ly ña ngay wax seen naqar ak seen mbetteel ci li am démb askanu Ziguinchor fa ñoo mer ba futt am mbetteel ci yëf yi Ndiaga Sylla ne li gënoon a ñu jox Ousmane Sonko fiche parrainage am loo jaadu 24 heures mu toll jeex na intaha yaaw seetal bala ñoo dem tribunal bu ndakaaru naan ña ngay attewaat atte bi bu ñu attee kum neex def recourati loolu yëpp bala ñu faa yegg parrainage bi fay fekk mu passé ndax décembre bi lañ koy arrêté njaga silla ne ñàkk notification ci radiation bi ñu def Ousmane Sonko loolu rek mooy firndeel ne doxalin bi jaarut yoon loolu rek bu ñu ci sukkandikoon waroon nañu mën a dugalaat Sonko ci fiche électorale yi léegi su kaay ne la man daal faa leen di xamal leen Ousmane Sonko moom xam na ñetti defet xool defet bu njëkk bi mooy ay farandooram waxoon ne démb dëkk bi fa nar a yëngu fa ñuy ñaxtu fay tàkk ak lu ma la mënta wax fan la mujj dara ba daree booloo jëf defuñu ko dara yëngatuwut loolu benn defet la ñaareelu defet bi mooy ëtt attakaay CEDEAO ba fa wax ne Sonko àq ak ay yelleefam état bu Sénégal salfaañe wut ko ñetteelu defet bi mooy Cour suprême neenal na gàntal na jeexal na mboolem yaakaar bu Sonko amoon ngir bokk ci wote yi ndax fa neenal atteeb saaba si fay ba yóbbu ko tribunal bu Ndakaaru vox populi na kon dëgg-dëgg nag Sonko fi mu toll ni ñàkk na jeex na intaha maître li na Cour mooy fa jël nee na tuuti bi jébbal ko beneen attekat maître Larifou ci avocat Sonko yi la nee na atte bii tey mbetteel ak naqar lañ ci àndal waaye xeex bi nag jeexagut fa ñuy continuer maître El Hadj Diouf avocat état bi na droit moom lañu wax tey fii la ñu wax na ñoom waa F24 mooy fi mu toll ni caaxaan faaxe lu ji njaag ak nguurug Sénégal mooy njaag ci mbiri Ousmane Sonko yi kon fi mu toll ni askanu Sénégal fa jot ñu génn ñaxtu source a yéen kaay ne faa leen fàttee wax atteeb Mame Mbaye Niang ak Ousmane Sonko boobu tamit jàpp nañ ko le 23 novembre bii ci la ñuy delluwaat ci cour suprême xool foofu ndax fa ñuy dëggal la atteekat ya atte woon muy daaneen tegoon wala foog fa koy neenal ni mu def démb li ci kanam raw li gët leer laneen lu leer ba yegg ca naan ñi ja mooy ne njiitëram Macky sàll fañ koo teeru teeru bu rëy ta mag ca diiwaanu Fatick ga mu fekk baax ba tax laas yéen e kaay na Fatick kay fa lalal tappi bu rouge seen doom ji di njiitëram Macky Sall lëg la Soleil yéen e kaay mel ni ku naan ko biñ ko teeroo ba pare fa leen a andil sëri ca bu duun duunde yaaw seetal juróom ñetti téeméer ak juróom fukk ak ñett ci ay milliards moom la fas yéen a dugal ca diiwaan ba ngir suqali ko Le Quotidien yéen kaay dëggal ko na tournée économique am bi kay njiiti réew mi fa bëgg a suqali ko diwaan bu mucc ayib vox populi ne waaye sa conseil présidentiel ba amal ca Fatick moom jiiti réew ma yëkkati na fa ay kàddu fa dànkaafu ñi nga xamante ne fa ñoo bëgg a nërmel réewum Sénégal tàbbil ko ci guuta yaaw seetal fa wax moom jiiti réew mi gis ngeen féeg may jël nguur gi di ko jox président bu bees bi Sénégal yi nar a fal balaa booba du ma nangu mukk ñuy salfaañi réew mi di ko taxal ak andi ay problème képp ku ko bëgg nag jéemal rek fa ma fi fekk man faa laay xaar dootoo ko defati may wax nag ay cadre Casamance naan fañ maa bind leetar man jiiti réew mi di wax wax yoo xamante xamante waaye man faa leen du tontu sax faalewuma leen sax l'observateur moom fa xëy séq waxtaan ak Samba Ndiaye candidat 2024 njiital parti bi di M10 nekkoon maire bu Ndofane ca Saalum jiite woon fi Grand Train bu Sénégal fa leeral ca yéene kaay ba ne ana lan moo tax moom Samba Ndiaye mënta topp mukk ci ginnaaw Amadou Ba ñu ne déetewaay fa daal di faram-fàcce programme bi mu am bu ko Sénégal yi falee ngir mu jaaree fa suqali réewum Sénégal léppañ ca biir yéene kaay ba yéene kaay mu bari kàddu nag moom coon ñaa fa leeral xanaa lan moo tax Sénégal deltu ginnaaw lu ko tëree suqaliku fa xëlbatiku tamit wax programme fam nar a jaar ngir suqali réewum Sénégal buñ ko falee mu nekk président ginnaaw boo xamante ne président adduna bi yëpp presque dalal nañ ko bokkoon na ca Barack Obama fa ñoo rafetlu xam-xamam ak mën a liggéeyam <laughs> leer laneen lu leer ba yegg ca naññi ja mooy ne Sénégal fay bal mook Soudan du Sud fii Ndakaaru stade a dem coupe du monde 2026 ne du ngeen seen morom kon fexe leen ko def sunu làmb yi ne kaay fa ñoo xamal ne suba ci dimanche ji combat bu mag ci làmb ji muy Lac de Guiers 2 ak Siteu fa a tàng fa nar a neex li neexut mbokki oustaz Omar Sall Ibadu ak Pape Sané mooy ne seen ñaari doom yooyu ba léegi ña nga ca loxoy takk dere gardaaw yi fañu ñu gisee waat ak àttekat bi ci la ñu xam ndax fañ leen di bàyyi ñu ñibbi wala fañ leen di jàllale kaso moom waaraatekat bi moom waaraatekat bi ak chroniqueur ba nekk Walf TV léegi ko yéen kaay na ko faale ci yokkal rappeur bi ñuy wax nit dof moom it ma nga ca takk der ya vox populi ne nit fañ koo tegaat loxo ndax na